léegi nag ñun am nañu un dialogue mais du peuple dialogue du peuple nag ngir askanu Sénégal. lan mooy seen ay termes de référence. yéen termes de référence yi ñun c'est très simple mbir mi tey lay am. Hmm. à parti de 17h terrain euh, bi nga moom moo nekk jardin public mais ci termes yi ci premier ponk thème yi ñu waxtaanee te effectivement loolu question centrale la. mooy mooy la troisième candidature. bi nga xamante ne mais loolu chaque jour ngeen waxtaan. non non xaaral non xaaral dafa am solo. Mm-hmm. parce que mandat dafa bokk ci bilan immatériel te par exemple tey boo gisee jiigi jaaxa bi yëpp mais ci réew mi tullëg man leen mais c'est parce que y a ce débat bi nga xamante ne moom njiitu réew mi mu wax ko mu wax ko mu wax ko kooku tey en complicité ak yenn ministre yi par exemple boo jëlee le ministre de la justice bi nga xamante ne day taxaw ci ay ci di taxaw ci ay plateau di défendre bec et ongle une troisième candidature qui est illégale et illégitime au lieu que moom ministre de la justice mu xool par exemple tey boo demee chambre neuf bu Rebeuss il y a deux cent cinquante prisonniers ci benn néeg amuñu ndox ñenn ñi dañuy dem jënd maanaam ay butéel kii ni mooy Evian ministre de la justice boobu loolu la war a régler qu'est-ce qu'on voit ndax est-ce que par exemple boobu bi nga xamante ne lu mu wax du am day jékki-jékki créer un zizanie nii oui nii non finalement. benn terme boobu rek ngeen am. wala nekkul terme boobu. beneen bi mooy que effectivement dañuy demee ci ay kii la élection te yaa ay nit ñi nga xamante ne moom président Macky sax moom moo leen faagaaga. comme qui. Karim Wade xalifa Sall même si man je respecte position woon puis bu mu waxee ni que dañuy dem wuy ji dialogue parce que aussi ci pays démocratie aussi mais la ñu nekk chaque est libre. ku bugg dem dialogue mun nga dem donc mais au-delà de ça aussi question de liberté yi parce que dëkk bi léegi WhatsApp la démb maa ngi toog émission balance y avait un jeune étudiant mais de kii ni mooy Pastef bi nga xamante ne dañ ko invité woon pare émission devant moi ay nit ñëw gaari seen oto section de recherche le jeune s'appelle Midou Karamba Amidou Pastef UCAD mais la bokk ñu yóbbu dañoo génn ci buntu Walf bi buntu Walf. mais lu tax ñu yóbbu ko. ñu yóbbu ko le pourquoi. le le le pourquoi parce que ñi ko jàpp waxuñu d'abord dañoo ñëw rek ne ko cabat man j'ai interview ma ne lan la ñu ne ma section de euh, kii la recette maanaam juste rek pour rek maanaam wane ni que fi ñu toll ci jamono ji ci démocratie. nañu rappelé wu lenn président Macky Sall bu koy jox nguur gi. Hmm. en 2011 ba 2012 bi ñu doon xeex waxuñu koon pour. ay tabax ak yooyu moom saabu waxaat na ko dafa ñëw pour restaurer l' état de droit parce que jamono jooju dañoo jàpp ne état de droit mais tey dañu def inventaire quand quand tu par exemple un Hannibal Djim génn këram jàpp yëpp Bassirou Diomaye Faye il n'a absolument rien fait ma ne il naa absolument rien lan lañ koy kilima reproché c'est de la même manière tey boo jëlee ndaw si Fala Fleur hmm. Fala Fleur xam nga moom dëmb dañ nañ ko jëli waaw mais faux compte boobu noonu. faux compte la non non non déglu ma. ndànk rek da ngay déglu rek ndànk dama ne la Falla la xam nga dëmb dem nañ ko jëli. waaw. boobu ba léegi faux compte boobu parce que man bëgguma tudd tuuram mais di def pub gratuitement ki nga xamante ne moom moo foto ay photo moom moo photo ay photo hmm. di ko partagé ana lan moo tax kooku ba léegi nit ñi mënuñu d'accord